xam nañ ko nii rek. waaw gannaaw bëggoon nañu xam ku mu doon vraiment bëggoon nañu tamit xam fu mu cosaanoo xam moom mooy kan. Euh, xalam juddam fii Fatick gii la juddu ci quartier bi ñuy wax Escale yàlla def moo ñu nekk fii ba mu war a dal école. Euh, su ma war fàttuwul daal weer euh, euh, soixante soixante sept soixante huit la war a dal école ñu affecté baay bi fu ñu mu dal fa école foofu la nekk bi am entrée sixième. mac bu demee école bu wàccee direct ci kayam mi lay def jàng lu mu war a jàng. Macky su joge ci njàngam rek ndimbali yaayam a tax mbaa mu dimbali ma man mi yumpaañam bu jógee ci kaye bi day jàppale yaayam ci liggéeyam su jógee ci loolu bu ay moromam ñëwee ñu dem foo tuuti ñoom ñu dellu su ci kaye bi bu moo amee entrée sixième moom dëgg la xale la mais jomam moo ko moo xalaat rek xam nga xale dañuy dem di waxtaan rek képp ki nga xam ne daal sa bàyyi bariwul xaalis soo demee université dañ lay dàkk nag moom loolu rek moo feesoon ci bopp bi bon ça fait mu ne nag moom école euh, euh, armée daal lay def waaw ci gannaaw si ñu ne ko nag soo dem école armée il faut indi sa kayitu juddu papa boobu ñu ngi Foundiougne moo yónnee fii judd papam euh, bi judd bi ñoom ñu jokkoo mu dem Kaolack ñu ne ko inscription bi jeex na waaw bu ñu ko waxee jeex na nag ça fait nag euh, mu mer lool am ci nakar yàlla def ba école bi ubbi mu dem lycée continuer njàngam waaw loolu de moo si indi waxtaan bi bu muy jàng fii lycée bu demoon ba école ubbi dafay tàggoo baay bi ak yaay bi mu ne damay dem ni dimbali ci suma najaay ci mbi parce que man nak jekk dama bëgg mbi suma loxo rek li bi Macky depuis toujours bu mu nekkee ci gouvernement ou bien dans la politique on l'a toujours vu toujours calme serein bon man maa ngi laaj nijaayam ndax si toujours il toujours comme ça de toute sa vie toujours mbokk yi yi ndax ni mu yaroo nii moom la meloon avant muy ne président de la république. Macky li ma seetlu ci nguneem su toogee ci ndab xamul ku toog ci ndab bi dina respecté ndab bi respecté li muy li nga xam ne moom lay lekk. Macky bu toogee ndax bu jógee doo far benn benn pepp ceeb doo ko far ci suuf te dina toog ci ndab ba jóg doo dégg kàddoom loolu remarqué naa ko ci Macky ci ngune bu gën boppam la bu setoon la te bariwuloon wax lu taxoon bariwul wax nag depuis bu mu nekkee xale dégg-dégg moom du waxantu waaw du ma xantu ku bëggoon jàng la comme que yaay bi benn doom bu jigéen bu am la am moom moo ci nekkoon mag bëgguloon yaay bi sonn bëgguloon baay bi sonn même liggéey jigéen yi waroon a def sax dem na ba mag bi sëy moo ko doon def waaw rootal na yaayam euh, lu nekk ci li lu bari di li nga xam ne jigéen mu ngi ko doon def defal na ko yaayam ndax bañ mu sonn waaw kooku moom xam naa ko ci seet naa ko ci. mag ku yërëm jigéen fu mu dajee jigéen boo mënti doon nga yore ba loo xam ne ne la diis ci yow makit na ko jël doon naa ko gis ci moom wér moom jigéen la. xam naa ne ku am jom la waaw ku am jom la parce que dem naa ci moom. be mu wóor ma ne mun naa ko waat waatal ak loo mun a doon xaw ma annabi yi passé wala sahaaba yi waaye ci actuellement même boo nekkee Syrie soo àndee ak Macky ngeen jaayante bu fekkee rek jom mooy nekk sa kanam waaw kooku moom mun naa ko waatal jóge na fii ñëw fekk si ma fu di di béy bi nga xam ne dem nañu ba suma Euh, suma benn rakki jabar moo ñu indil añ bu ñu añee nag mu jël mu jël ileer bi di béy di béy bu mu yàgg mu ne bon déedéet mun naa béy ma ne ko ah yow kay góor na yow yaa ëpp ba kii sax mun a béy ça wax naa wax naa lu ëpp moom na te man yëgu ma ci dara ma am xamul béy ci suma loxo rek bi at bu nekk bu bu mu nekk fu ñu jëm at bu nekk bu bu école tëjee rek man la fi kii ñu loolu moo ko indi loolu rek moo ko indi dimbali ma rek. damay liggéey di daan sama doole ku ñëw fekk ma ca ndax du sama gàcce du gàccey Macky ñun paa ñi Macky ngi jaay bitik ci buntu këram du gàccey Macky du sama gàcce damay daan dama samay daan sama doole di jàppale Macky di jàppale ay rakkam.